kooku mooy seen million ñu mel ni général Malick la de waaw moom nag waa NPS ren defe naa ñoo ko wala at miy jeex ci làmb yi moom lañ nominé meilleur lutteur ci wàllum simple mu ñëw tey nag seet si ñu fii ci Leewtoo ànd ak Daouda Daouda laay njëkk nuyu sax maa ngi lay bëgg yaar sant yàlla ci loolu ne ñu ngi jàmm baax ba am ngeen jàmm waaw ñu ngi am jàmm baax félicitation waaw merci ñoo ko bokk suñu la <laughs> waaw yëfi làmb waa benn ba a ngi ci ak Malika ñëpp a ngi jàmm waaw Zé ci loone siyaar naa la naka taw ba am nga jàmm sant naa bu wér euh, naka benn baraag ak Malika ak Kër Massar ak yëmbal yëmbal ak buun ak buun ñëpp a ngi fa ñu ngi si jàmm ba Pikine sax ba Pikine waaw waaw dam naa leen ñu ci kawam <laughs> naka yëngu yi waaye sant yàlla bu wér ah félicitations oui ah. waaw merci nag ñoo seet si woon waaw tey moom dama leen seet woon comme nee naa la waaw yéen chaque jour yéen ay wu ñëw di ñu seet si comme tey jaadu na ñu ñëw seet si leen quoi daaw bëri na fu mu dajeeg général Malick rawatina adresse Senghor birom maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi dellu ziar bu baax Babacar. di te xam nga biram mi xanaa. <laughs> waaw. biram taxawaayam ci làmb daal rafet na ndax saa su ne ñun bëri na li ñuy dem Adrien Senghor yoo xam ne dañuy daje ak moom en même temps chef de l'état bi gis naa mu def ci liggéey bu mucc ayib quoi vraiment kontaan ci ñoom rek. biram moom la ñuy jox meilleur lutteur ci wàllum simple distinction. ba ñu si mën a wax yow en tant que koo xam ne waxuma sax li simple loolu daf mais lamb si boppam dafa am loo ci def am loo ci xam yore tamit écrit yore ay mbër en même temps di menacer mais nekk itam reporter. waaw jërëjëf kër damay kontaan lool ci question bi waaye itam euh, kontaan lool ci nomination bi parce que xam nga nit pour nga nommer ko il faut nga topp ko boo xoolee ANPS ni mu def ba nommer ko xoolu euh, xooluñu benn kombam rek wala benn làmbam rek yem ca mooy topp nañ ko. xool aussi la mu def au niveau national parce que boo dee ANPS au niveau national la donc bu ñuy fal mbër au niveau national ba ne ko yow la ñu fal ne yow yaay nangam euh, def ma wóor ne teg nañ ko ci ay yu leer teg nañu ay hypothèse parce que du ñaar nit du ñetti nit mbooloon loo xam ne kenn ku ne da ngay indi say suggestion te boo xoolee écrit yi ni ñu toll mbër yi ni ñu toll bu ñu demee ba joxoñ kenn baaraam ne yow la rek am na fi ñu ko teg te jàpp naa ne moom la général Malika euh, malgré que yàgguñu koo xam waaye nag sunu kanam la bëree mën nañoo commencé ci ay combam fa mu der pare ba fii ñu toll te li ñu xam ci moom euh, xëy na lutte simple bi def cee briller lool daaw daf cee gën a briller daaw mais daan na ci def ay preuve même à part daaw loolu nag boo ko cumulé ak lu mu ñëw ak mu ñëw xool rëg-rëg mi ko nekkoon daaw mu daaw jéeg ñu baal ma waaw daaw franc la woon mais nga xool Reug Reug nu mu xawee sonal gars yi ci euh, lutte simple ak moom nan la ko daane du fem bu ko daane mais avant ma koy daan maa ko njëkk a tàllal micro daa ñëw dugg ci biir ma tàll ko micro moom ma tey nga gis loo mësta gis ñu tourné ñu tirage leen mu ñeme ko ñeme goo xam ne avant ñuy bëree ñuy nattante ay gàllaaje gi ñoomen seen ba pare daan ko avec la manière dem drapeau chef de def zéro faute ci gàttal zéro faute boole kook fecc yu doy waar bàkk yu doy waar rakkaaju te nag Babacar mbër day xajam. wax dëgg mbër day rakkaaju bi mbër day rakkaaju day xajam day xajam parce que tam mbër euh, tàmm nañ ci wax dëgg yàlla mu bëri cëppi cëppi ak yéen. cëppi cëppi merci beaucoup. mbër daa war a fuy bu ne ci biir mu def ci loolu nag génn. kon euh, loolu rek dama ko cité. waaye noonu ma ko cité ragal naa ne leneen affaire yi lañ ci cité boole ko loolu boo ko boole nag boo watulee nag mu ëppal gaa yi jàll nag. am na solo jërëjëf Babacar. waa général a ngi nag ñëw na dugg si Leewtoo ziarante gars yi dégg ngeen li nga xam ne ni moom la Biram wax ñuy ay connaisseur si làmb géné encore une fois rek dañ lay waxaat rek comme ni ñu waxee sànq félicitations. oui merci Babacar ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ah, di nuyu suma sëriñ si Ablaye Diop borom xaas di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal gi yëpp ah, di nuyu waa Malika yëmbal benn bara Kër Massar Rodo Boune xam nga Cité Pélétance képp kuy soppe général ak sama ami nekk ci diaspora bi sant naa ñëpp. Euh, général nga tënkal ma si lu gàtt lan moo la dugal ci làmb ak ku tax nga dugg ci làmb. waaw làmb moom li ñu ci dugal mooy bëgg-bëgg dañ koo bëgg foowee ko ndax ñun Malika ba ñuy gën a nekk xale suñu foo yëpp bëree la woon. te dañ daan dañ daan génn sax daan dem géej Malika ñu ñuy tere ndax moment boobu noonu xale dem géej wóorul woon. mais suñ demaan géej nekkul sangoo ñu fa daan yóbbu wala defi leneen mais fa la ñuy nekk mën nañoo ñëw deux heures wala trois heures contact bëre bëre bëre ba dix-neuf heures wala vingt heures mooy dem ñibbi ñu bëgg ko noonu nag doon ko fooyee doon ko fooyee ba yàlla dogal suñu xel nekk ci bëre làmb ci lañ fekk am na sama benn grand bu doon bëre ci laa ñewee ne leen damay bëre mbapat affaire yooyu noonu ñu ne ma ah ñeme nga ko man làmb suñu yëttee bopp la def ko def ko mbirul boo xamante ne maanaam dañ ko doon fowee commencement bi mbapat fu ñu dégg mbapat dañ daan jël suñu sër di ko foowee dem nag moment boobu ñu ngi liggéey dem ba benn instant xam ni làmb ji nañ ci am dara ñu gëm ko def ko muy suñu yitte. lan moo nekkoon métier mi boobu. boobu maa ngi def tôlier boobu maa ngi def tôlier waaw. am nga ci làmb idole bi ñu ciy dugg tamit am na ko xam ne da neexoon nga di ko roy. waaw bañ ciy dugg moom mënuñ woon ñax amoon nañ ci ay idole ndax man. ba ñuy gën a nekk booy dañu daan suivre Moustapha Gueye ñu dem ba benn instant génération Balla Gaye bi génn ñu doonoon ñoo xam ne tamit dañu leen daan bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax surtout Balla Gaye doonoon na ñu doon bàyyi xel bu baax a baax. su ma la déggee Tafa Gueye wala Balla Gaye ñoom ñaar kan moo ci sa idol mën naa ni Balla Gaye ak Moustapha Gueye mënu mënu ma leen xaajale. ndax Moustapha Gueye mu jiitu loolu ndax bañ na ko ba sama yaay Fass la daan dund moment bi ñuy xam Moustapha Gueye liñ gën a tuuti xamuñu woon sax ndax dinañ doon mbër mais dañoo amoon ci moom cofeel moment bi ci làmb def ko muy suñu yitte Balla moom lañ doon roy ci bu bari mhm. daal Balla sa royukaay la si làmb waaw ah, suñu royukaay la moom loolu suñoo toog fenn wax ko ndax yaakaar naa nit ki bu melee nenn ni ba nga koy bàyyi xel ba koy doxe loolu damaa jàpp ak cant la ndax am na ñoo xamante ne dañuy roy ñeneen mais xëy na Balla Gaye sañ-sañam ak bëgg bëreem ak affaire yooyu moo taxoon ñu ko doon bàyyi xel. tey nag fi may jubali fi ñuy jubal parce que yooyu day baax ñu leeral ko mais fi ñuy jubal directement mooy dañ la nominé saison deux mille dix neuf deux mille dix huit deux mille dix neuf meilleur lutteur ANPS ñoo ko def ci wàllum simple loolu biñ ko no bi nga déggee nomination bi lan nga ban réaction nga njëkk a amee. bi mu ko déggee kontaan laa def. ndax yaakaar naa moment bi ma koy dégg kii maa moom ñoo ànd Daouda maa ngi moom ñoo ànd am ay yitte yu ñu doon doxi mu jékki-jékki ñu envoyé ko message wax ko te fekk avant loolu noonu ñun am na ñu doon dégg mais man nit danaan ñëw sax ba dama général est-ce que bàyyi nga xel li nga def ren li nga def amul benn mbër bu ko def ma leen ah ñun de làmb suñu yitte la lu ñu ci def rek jàpp nañ ni war nañoo def lu raw loolu noonu quoi moment bi ñu woowee sa nag envoyé ko message ne ko général lañ nommé loolu fekk mu doon lu lu rëy ci ñun daal ndax tamit nit bëre na ba bàyyi musuñu ko koo nommé nit dugg na ci simple bëre am ci lu ne kenn musu koo nommé meilleur lutteur kon ñun ñi nga xamante ne mun naa ni bañ duggee ci lutte simple daaw la xaw ma daaw jéeg lañ ci dugg yàlla dogal ñu nommé ñu ko kon loolu ak cant la kontaan nañ ci bu baax a baax. Euh, mën nga ma dikkal daaw ci li nga jot a def ñaata drapeau nga gagné wala ñaata tournoi. waaw daaw li ma am ci ay drapeau yegg na ci presque ay budul ay vingt quatre waaw ay presque ay vingt quatre ndax man dama daan jóge fii di dem Casamance sax di bëri di dugg Jaxaaw Siin di dugg Kaolack di dem Passy ay sum fu ne laa doon dem mën naa ni Sénégal damaa wër partout Sénégal. daaw amul fu ma demul ci Sénégal fépp fuy tëgg làmb laa la wax dem naa fa te boo xoolee làmb yi nga xamante ne ñu ëpp coow Fatick làmb yi fa gën a mag man maa ko jël Kaolack làmb bi fa gën a mag man maa ko jël parce que làmb bi fa gën a mag dis jakarta yi man maa ko jël. final boobu yaa kan la woon dis yi final boobu maag euh, Sandrep Sandrep laa dajal final waaw. kii euh, Sélémélé laa éliminé demi final am Sandrep final. Mhm. Fatick Fatick moom defe naa am na bu ma la fa fekkee yaa caaga fay final. yaa maag caaga fay fekkee na nga ma fa final Ndiaye Ndiaye Fatick bu mujj bi ordinateur laa daan demi final am benn booy bu ma daan final mais jàpp ma turam. Mhm. liñ la daan daaw tamit jàpp nga ko am na loo ci jàpp. waaw da yoon nga ñàkk. daaw ma xool ay trois fois quatre yooyu yaakaar naa laa ñaax ay tournoi waaw. Franc daan la daaw ñaaxar boobu maa ngi. waaw final. ma xëy la lendemain dem mbuur jël ko ñaari lamb yi gën a mag mbuur boobu man fala fekk fala la fekk waaw dañoo bëre samedi final ma ñàkk dimanche bi ma dem mbuur jël ko grand ba ñu ko final maag ñoo final woon waaw ci laa jógewaat foofu nekkaat ci sama compétition di gagné di gagné demaat ba dem Joof yor am fa benn final mu ci ay affaire da def nga quatre appuis def nga quatre appuis ñu jox kee ne amul problème Dakar ñaata tournoi nga fi gagné Dakar li ma fi gagné est-ce que du ay trois yooyu trois laa fi gagné mu def Adrien Senghor wala. waaw Adrien Senghor waaw. si Iba Mar am na boo xam ne Grand Bañik moo la éliminé. waaw Grand Bañik moom éliminé waaw. Hmm. daaw mën nga ma estimer kon li nga am ci xaalis ñaata million la parce que tournoi yooyu macha allah li xaw na bëri de. non sant yàlla mais nag xaw ma ñaata la vraiment. déet ngay gagné say somu xaalis ñu koy bind di la ko versé nga ne xamoo ñaata la. wallaay xam naa ko waxuma loolu am. kon daa bëri xanaa. loolu la ñuy mu bëri mais na mën a wat ay 20 millions xanaa kon. xaw ma ko xaw ma ko dee vraiment waaw. 21 millions. 21. daa de moom xay xëy na xaw ma ko ndax xam nga. ko kay da ngay bañ ñun c'est ni ñuy dundee làmb mooy gis nga mbër li nekk ci ginnaam dafa yaatu te des fois gars yi dañuy dégg somme yi ngay am mais somme yi am ni muy ñëwee noonu lañ koy partagé waate ndax dafa ñoo xamante ne. dañuy nekk sa ginnaaw di la di la ñaanal am ñoo xam ne say nitu bopp lañ te tey li gën a yéeme mooy saa bu ñu déggee mbër mi jël na rek am ñoo xam ne ci sens dañ lay woo dégg naa def nga nangam ak nangam aca na gaaw indi dara te du mën a ñaax waaw joxe mooy tax a yokk ci sot la bokk te ku la jàppale ba nga gañ xeex noonu la demee foo nga def dara loolu moom lu mun ta ñaax la yow di nga joxe paas parce que di mbër yoo xam ne bu ñu final dañuy joxe paas yow da ngay joxe paas sa morom mbër non li ma ci joxe mënu ma koo compter yàlla xam ne loolu mënu ma sax gañe làmb sama moromu mbër di ma wax paas may kii yàlla xam na ni saa bu ma gañee làmb am na ci ñoo xam ne sax dañu ñëw taxaw mais damay génn jox leen paas kii ah mën na maa seede. Mm-hmm. rëg jot ngeen a daje ci mbapat yi. kon rëg rek pour. daaw moom daje ngeen nga daan. waaw boobu lañ daje yaakaar. benn yoon boobu ngeen mos a bëri. waaw bañ bëri woon mos njëkk nañoo bëri Ibamaar premier jour bi may njëkk a dugg Ibamaar jour boobu lit mbëri comme dama toog nii rek gars yi Ibamaar tëgg na la ma leen nañ leen dem ma jël sama seet zéro mbëri ñu nekk cent vingt huit lutteurs. kon moom moo la daan rëy moom moo ma daan mu am ay erreur ndax xam man sañ-sañ bi dafa bëri moment boobu ñu ngi koy coow ci simple bi ñu dajee quart de ma daw Sonko bëri bi jaxasoo nag ñu ne ma def nga kaat api fekk kaat api amul woon après ma dem di réclamer ñu ne ma fees la ndax zone bi laal Malick ne ma zone bi bu xawee laal tuuti rek bu passé tuuti fees bi rek loolu fees la te arbitre central mooy loolu waaw ñu ñu fàtte loolu ah nekkaat suñu bopp. drapeau résultat tamit dafa mel ni da nga fa dem daaw toj ko ah, Mbour. waaw muy sama première participation mais ñu ñëw wane ci jom ak fulla ak fayda waaw ndax loolu lañ def si ñun lañ xam ñun ñun moom làmb xamuñu ci quoi. souvent des fois gars yi dañ ma ciy sonal sama ami yi fu ne lañ may woowee Zia booy bëri def ndànk del ndànk. mel ni tamit dañ la fa nominé ah dara résultat bi mu jeexe waaw ba mu jeexee ñu jox ma catégorie cent vingt kilos meilleur lutteur waaw. jeu de la francophonie tamit dem nga fa defe naa daaw Abidjan ah, ak équipe Sénégal équipe nationale. non boobu dew ma fa demoo kon. combat combat Modou bi. ah Franc moo demoon voilà. combat combat Modou bi lañ jël ay lutte Afrique ay mbër africain boole ñoom ñoom comme dañoo xool ñu gën a confirmé ak. Modou Lo ba Eumeu Sène waaw Eumeu Sène bi waa ci la ñu bëree woon ak yooyu noonu. Hmm. équipe nationale demagoo fa. équipe nationale noonu demaguma fa demaguma fa waaw. xanaa mosuñu la woo. non doon nañu coordonné mais boo xoolee ren moom ñu ñu doon woo di wax affaire yooyu noonu mais xam nga ren CBAO amul. amul amul woon waa amul woon bu fekkoon am na xëy na ñun mooy loolu ndax amoon nañ ci ñun yaakaar doon nañu woo affaire yooyu noonu waaw. Euh, loolu moom leer na kon leeral nga daaw li nga jot am ci saison beeg yooyu mais fi ñuy jeexale mooy ren saison bi dafa ubbi prip nga ñëw arène nationale bëree fa finaalu ak Serigne Ndiaye numéro 2 mu daan la keroog Serigne Ndiaye numéro la daan da la ëpp doole wala lan la. waaw Serigne Ndiaye ci biir bëre la ma daanee ndax ndax dañoo dañoo bëre ma fàqat ko mu romb ma daw di ko wër moom mu mu tourné waat moment bi mu tourné ma daw jàpp ko ñun ne ngee ñante mu forcé di ma jàpp ngemb may génne sama loxo ci biir ngemb après mu dawaat taq ma bi bi jaat après noonu bëre bi jaxasoo ñu àndandoo rëpp ci suuf maman nag bi ma koy mbot ci suuf la rocceeku loolu ci biir bëre la mu am ci ndam waaw. nga ñëwaat Adrien Senghor. Pakala def naa mu la éliminé. Pakala waaw par décision arbitre ah, ñu def. décision la éliminé. waaw par décision arbitre ndax Pakala dañoo bëre may bëre ci kawam xam nga làmb ji jox ko image yi ñi ko am sax mën nañ koo mën nañ koo wane waaw ñu bëre bëre bu bëre mu koy daw di ko jëli arbitre bi jékki-jékki siffle jox ma avertissement ma ne leen lan ñu jox ma mais loolu seen décision la ñu bëre waat mu jàpp ma nengeeñ te ba mu dëgër nanguwul bëre ma koy manœuvrer mu téye fi mu téye temps bi jeex arbitre di jox ko victoire te souvent simple dañ naan jàpp sax ne ngeen amul mais nag loolu yëpp seen décision la amul problème garaaw mhm. nga ñëwaat gaal gi bëri ki démb tamit yaa ak Ibou Ndiaye seen diggante mi la ni tuleeg Mallé nga ne ko yaay boroom fooñi xaw ma moom mooy boroom moom moom mooy boroom fooñi loolu la wax. yaay boroom bajaan waaw man maay boroom bajaana bay laa. si la caay jiñaaki xam nga xam nga maanaam da ciy am détail yoo xam ne day mat a leeral ndax Ibou Ndiaye dañoo dañoo daje keroog man bàyyi mu ko woon sax xel ndax souvent du may faral di def loolu man su ma demee ci làmb jàpp naa ku ma fa dajal rek mun nga doon sama adversaire sama adversaire nga mais damaa ñëwoon nekk ci làmb ji di yëngal mu jékki-jékki daw fekk ma fa duma tëkku ma ne ko nangam mu ne ma xaw ma daan naa nangam te man Ibou Ndiaye Casamance laa ko jàpp sama bàmmeel laa toog dama koo bëreloo ba mu jaaxaan ne mënatul bi ma bëli dañuy bëre ba si yàgg mu daw ba bàyyi gars di ko woo mu daw di yëg ci ay kaw garab def lu ne ñëwaat. loola sori na garab ci bëri. barki arxuraan laa la waatal. daal ñëw itam la ci ci garab xanaa mën ngaa yem ci suuf si nag. sama sama sama sama bàmmeel laa toog du ma waxantu daw yëg ci kaw garab ñëwaat ma jàppaat ko bëri loo ko ba mu daw tëdd gars yi woo ko mu ne mënatul bëri. billaahi wallaahi wa taala. ni keroog nag fayu na kon de. non ñëw na mais su doon fekkee daf maa jàpp. bëre loo ma daan ma jàpp la dafa fayu lu mu def dañoo bëre ci kaw bëre mu daw jëli ma action la moom moment bi may daanu moom moo njëkk rëpp mais xëy na man moment bi ma koy bi may tourné ci laa ci laa ci laa daanu ak affaire yooyu noonu mais loolu tamit suñ fàllu ndax compétir la gis nga man moom ay benn ndam aw aw ma aw ma problème problème boobu noonu quoi man su may bëre bëre laay def ñëw ci làmb pour benn nit waaw du ma daan tamit benn nit doyal man non non du ma genre boobu ma xasee ba dugg ci làmb tànk tournoi bi jeexul mooy loolu waaw. léegi fi may waaw ci yooyu laay mujj xam naa ne euh, dakaar dafee ne nga dëkk dakaar ñu gis la nga choisir dem équipe bu Fatick lu waral loolu. waaw li ko waral mooy maanaam xam nga xam nga xam nga dakaar dañoo amoon ay mbër yu leen fi nekkaloon doon doon teewal te ñun li may faral di wax rek ñun ay mbër lañ dañuy xëy di compétir xaaruñu kenn dèjà man waa Fatick ñoo ma soxla. wax ak man te dama am staff ba ñu waxee ak man ma wax leen wax leen ak sama waa staff ñu waxtaan ak sama waa staff déggoo ñu ne dañoo bëgg bëri leen catégorie 120 kilos man leen amul benn problème man bëri laay def. looloo ma yóbbu Fatick.